وأسبلن علينا رب عافية وهب لنا القصد في الدارين يمام وافتح لنا كل باب كنت فاتحه لسالهين من الخيرات يمام واسلك بنا نهج رشد واكفنا سللا وكلنا بالنوى الشيطان lay nuyu baax la jaar bi nga xamante ni sa maam moo doon koo xamante ni sa mbég sama la nanga ma ci sant yàlla loolu dong lan lay wax yàlla na yàlla defal jàmm te di nuyu sunu kilifa yi nga xam ne ñoo jiitu di sëriñ Mountakha mi nga xam ne tey moo toog jotaayu Cheikhul Khadim di ko siyaar bu baax a baax a baax a baax tey ñaan jataayam bi yàgg yàlla def ci kiimaan ci jataayam lu mus a defal kenn euh, te barkeel liggéeyam te sëñ Tuubaa nangu ko te bokkook moom te lu nu ko ñaanal lu ne rek lu nu yéenee la wax ko ndax nit ki boo ko xamul doo ko mën a yéenee loolu lu baax boo ko miinu tam doo ko mën a yéenee waaye moom nag ku ko miin danga ko yéene lu baax kon yàlla na fi yàlla bàyyi tan bokkook moom di nuyu sunu kilifa nu nit seriñ Abo moom Cheikh Mamadou Fadal di ko jaarale ci sëriñ Basiiru Mbakke mi jaar woon kër gi ak sëriñ bi Fataa mi yor kaddu gi euh, Mbaye euh, sëriñ sëriñ Fallu daan nettali ci ci ba làmmiñu dafa wax ne sunu baaje di moom moom rek la ñu am buñ ko amutoon tam danañ ko wuti waaye nag am nañ ko loolu la wax de waaye yemu ci moom nag dana maa 1945 sama mag ju baax ji ba mu demee man man yàlla dogal man maa fi nekk tey la wax ba fi nekkee nag moo tax ma man tam ma am yéene ci yéen nag ndax nit laa koo xam ne ngottuma la wax dana nit ku nit laa xam ne koo xam ne yàlla dogal ni ngottuma te moom kat ña fenk ña féete penku dañoo am kiiraay noonu ñu féete soow tam am nañ kiiraay kiiraay boobu nag laa bëgg nañ mu ñëw ñu yërlu nag muy magal gi mu daal di koy woote dëkk fi ñu daa wax fii sëñ Modou Bousso Dieng dëkk ñànk doon tuddoon fi la ko njëkk a woote moo indi bis bi tey. daana wax naan nag woote yomb na waaye ko woote yàlla nañ la wuy si waaye ku ñu wuy si yàlla nga xam loolu leen doyoo nee nag moom lim leen doyoo mooy santale ko yàlla la waxoon. te nit ki boo ko dee santale ko danga ñëw ba ca moom fam fam fam dëkk nga fekk ko fa kon loolu moo fi indi nit ñi nit ñi nag jàmbaar lañu bañ leen wooyee ñëw nañu jamono ji fii mu toll ku ko xam danga xam ne neexut waaye yàlla jeexalu dara ginaaw ñëw nañu nag li ñuy ñaan noon te sañ koo ñaan mooy suñu kilifa yàlla nañ fi yàgg waaye nun dongo yi tamit nag yàlla nañ fi yàgg te am lu dem def suñ poos yi ba ci mën a joxe addiye la ca des nag moom sañu ñoo jox kenn digal waaye danañ xam ne suñu bopp leen liñ ci jéem li ñu bëgg a dim li ñu bëgg a dimbalee suñ mën taxaw mooy jub te nangoo jaamu jàlla yàlla buñ ko defee rek mën nañ koo dimbale waaw jànq loolu mooy li ma laaj rek ci bis bi lu laaj ma loo ci tegaat yor-yor xam nga yàlla sàkk yor-yor sànq guddi lam kenn du ci xam dara maag mi tamit lam ca kenn du ko xam waaye lañ daje ngërëmul sëriñ bi loolu daal ñaan ñaan nañ ko ci yor-yor waaye nag doo xam ginnaaw yor-yor day am timis daam ngoon am te noonu màggal la ñuy def fi mu du yor-yor gi la ñuy màggal noonu la ñuy màggal mooy moom loolee mu bëggoon rek sant yàlla di fas yéene fii ba suba rek. di togg ka yàq fii ba suba ngir teraanga ndax lim na defal mën nu koo fay waaye danañ ko santale yàlla de loola moo indi bis bi nag kon ñu ngi leen di sant yéen yi nag te di xam ne seen i kilifa yi leen yabal mat ngeen ko leen mat ngeen a yabal ndax nit bu amee yar rek lu ne mën na ko am te nit ñu amuñu jot ñi li ci des nag mooy bokk yaa ngi nii dongo yaa ngi nii jëwrin yaa ngi nii toog xanaa lu buñ ci xamee dal te ñoom sànni ko ci rek bisimilah. noo ngi nuyu a di ñaan baax sëñ Cheikh mi Mbacke moom Serigne Falilou suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ba naal yim naalal Serigne bi suñu borom yàggal lépp maanaam bu Serigne bi xasee wax amatuñ yenn kàddu yi ñu ciy teg lu may yeesalaat suñuy njëbbal suñuy pas-pas ak suñuy kóoditi ak sunu yaakaar tam ci Serigne bi bis bi itam lépp luñ ci mën a def rek di bokk di ñaanal Serigne bi rek kanu ci war suñu borom yàggal ko fi ndax ak dundam. am na njëriñ lool ak dundam léppam njëriñ la kon yal na ko suñu borom yaakaar yal na ko suñu borom yàggal te wéral ko ñun ñii ñëpp lii doon moonu ko def eh, ki def li doon nag loola itam mënta toog ngay wax dara ci moom waaye li def tal duñ ko sant waaye sañ nañ koo ñaanal yàlla suñu borom yàggal ko te wéral ko màggal gi tam amuñu dara luñ ciy wax lu mooy li mu rek noonu rek la waaye moom daal moom rek la ñuy sant moom di ñaan si dara ji bis bi sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko teggali bépp yéen si barkeb Serigne Falilou. taat yàlla bu baax di julliwaat ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam tey seede ni Cheikhul Khadim Khadim Rasoul amul morom kenn la jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba sëriñ Serigne Touba Khadim Rasoul li tax nag ñi sant yàlla mooy woote bi seexul Khadim mu woote te Serigne bi wax ko léegi te di ko faral di wax ci kàddoom. bariwut de wala néew na de ku ko wax kaa leen sant la ma yàlla. Mm-hmm. te sant yàlla nag njariñ képp nekk ci. ndax yàlla moo ne su ngeen bëggee yokkute sant leen ma su ngeen ma santee dinaa leen dolli. Mm-hmm. kon ndeke Cheikhul Khadim ak yokkute rek la bëggoon ci ñun. loolu moo waraloon mu bëgg ñu jàng alxuraan ñu jàngal ñu xam-xam suñu noppee ñu tarbiya ñu su ko defee ñu mën a jariñu fii jariñu fële ñu jëm ñaanal maam Cheikh mi Mbacké suñ borom yàggal ko saxal ko te wéral ko. ñun de xamuñu te fekkewuñu fekkeewuñu Cheikh du faadal moom la ñu xam moom la ñu fekkeel te lépp lu ñuy wax ci Cheikh du faadal suñu gëstoo gis ko ci moom kon balay sa yàggal wéral di nuyu di sant suñuy jëwriñ suñuy kilifa ñoom ñëpp rek sans exception ku lim doo matal ñaan nag ñu yàgg ko teewee yàgg ko teewee te yàgg ko ànd ak wér yàgg ko ànd ak i xéewal yàgg ko ànd ak i tawféex te yàgg ko fee fekk te léppam di mat bu ngeen gisee ma jël kàddu ndax naru ma cant moom cant rek la la la mun a doon kon ñu nga sant sëriñ bi bu wér a wér muy alaay Cheikh Mbacke moom Cheikh Mouhamadou Fadal ndax mooy suñ sëriñ Touba mooy suñ Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacke ndax bam ñu ba ñuy ànd ak moom di kas di di di di liggéeyal sëriñ Touba Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacke lu yàgg la te dara mu see yàqu jëmm ji doon wax muy sëñ Modou Ba moo jiite woon liggéey bi fii kon bu yàlla dogalee ren mu ñëw euh, màggal si jóge Espagne ñëw fekk màggal gi kon ak tawféex la mu ñëw yéen ñu yor site yi ñëw fii tommi kon ak sant yàlla la ndax ñu ngi sant alaay Cheikh Mbacke moom Cheikh Mouhamadou Fall daa wax na ko nee na nu mu mel sëriñ bi la te léppam da koo jox sëriñ bi ndax bu santee ñëpp jaare la ko su moom sant sant sant na mbooloom yépp jow lu Omar moo doon wax léegi mu jiita Baye Fall sëñ Bakary Diouf mu ngi nii di doon taalibe si biir kër gi kon ñu ngi sant yëpp di ñii di leen sant naar yow ay ak sit bi ñëw fii léegi te te te te soxna si jiite jiite ji ak ñoom saam kon ñu ngi leen sant bu baax a baax yan nañ ko teew ay at képp ku fi ñëw yitte goo fi ne yàlla na yàlla na saafara ko si barka Cheikhul Khadim bég neen wasalaamaaleykum wa rahmatullah